soo bëggee abonné ci bu mag bii di académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb lépp yemb su boobaa dara nag dootu ci actualité ci communauté mouride bii di Daaru sant Serigne Touba yi taalibey murid yi fu ne lañ koy defee rawatina bu ñu amee mbégte tournée bi nga xamante ni sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mu koy amal ci réew Mauritanie ci ndigalu xalif général des Mourides loole ñu ngi koy wéyal ci samedi bi dëppoog le 8 février 2020 sëriñ bi ànd naag délégation bi nga xam ne ñoo koy gunge ci tournée boobule ñu dem ci kër sëriñ Touba gi nga xam ne moo nekkee ci Nouakchott ci capital bi ngir fekki fa ki nga xam ne moo fa nekkal sëriñ Touba ci dëkk ba di sëriñ Sidi moom sëriñ Mourtada Mbacké moom jamono bii sax nekk fa waaye ki nga xam ne moo di sëriñ Amidou Mbacke moo ko dalal ànd kook mbooleem taalibe yi. sëriñ ba siiru Mbacke Abdoul Khadr bi muy ñëw nag ak délégation bi mbooleem taalibe yi dar nañ convoi bi ànd ak ñoom ci mbooloo mu takk lool ñuy santaat bu baax a baax sëriñ Touba waaye di sant sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko ci réewum Mauritanie. noonee lañ àndeek moom ba ci kër Serigne Touba gi Serigne bi nag bi mu fi agsee fekk fi fédération daayira murit yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoom ñëpp ñu ànd maase doon benn ci njiitalul ma Madiop Diop ànd kook secretaire général bi nga xam ne moo di Serigne Codé Diop. ñoom taalibe yi nag fësalaat bu baax a baax seenug mbégte ci ñëwug sëriñ bi ne yenn jafe-jafe yi nga xam ne saa su ne ñu koy am ci réew mi su fi sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ñëwee loolee lépp day wàññeeku bu baax ndax taxawaay boo xam ne sëriñ bi dina ko am ci digganteem ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye di taxawu ñi nga xam ne ay ressortissants lañ nekk ay sénégalais ci moomu li réew di Mauritanie rawatina taalibe yi murit yi ci taxawaay bi nga xam ne war na ko ci digganteem ak ñoom. mbégte googu ki nga xam ne moo di secrétaire général fédération daayira murit yi nekkee ci Mauritanie di Serigne Codé Diop fësal na ko ci kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko. nga ñëw fekk suñu fii ñun taaliba yu xeebu yi kon loolu ñu ngi la ci gërëm cant gi dañu jaarale ko ci ka xam ni moo la teg ci kanam di sëriñ Mountakha Mbacké Bachir kooku taaliba yëpp nañ ko sant tey wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na fi yàgg lool it te wér ndax fii sunu njariñ la yàlla na fi yàgg lool lool sax te ànd kook sëriñ Bass bi ak bi nga xam ni moom la àndal ñoo ngi sant dëkk yi di sant gan ñi di sant waa réew mi di sant délégation bi fi teew di sant bépp association bi fi ñëw bépp kuréel gu fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi lay sant ci turi fédération bi nga xam ni Serigne Madiop moo ko jiite ci ndigalu Serigne Sidi Mbacke Mourtada lii lépp moom la. li ko waa ji wax léegi mooy dëgg dafa ni dañu ko suñ bas dafay ñëw mu ne ah loolu day daf ma am lu ma fekk loo xam ni lu rëy la ci man. waaye na ngeen xam ni kooku fii ñëw jàppe leen ko sëñ taxaa mu jóge Touba ñëw Nouakchott leen ko jàppe noonu lu ngeen ko war a terale sëñ taxaa teral leen ko sëñ Bassirou loolu la wax kon ñi ngay sant di sant délégation bi nga àndal dina xamal ni ñun amuñu lu dul sëriñ Touba dara feesul suñu bëtit lu dul sëriñ Touba gis nii dara ñoru leen sëñ Tuubaa rek la mën a déplacer nii nii ñu def nii sëñ Tuubaa rek ko mën ci am ci ñoom kon sëñ bi da nga leen ñaanal da bu baax ci seenub liggéey góor ak jigéen mag ak ndaw surtout nag jigéen ñi jigéen ñi daayira maam jaare yi fi ne amuñu semaine bu ñuy jellal te tasewuñu dara ñorul leen lu dem ci daayira yi dajale seenu ñaq bu poroxaan jotee ñu dem poroxaan bu seen sëriñ wootee ñu ñëw bu sëriñ si bu wootee bu sëriñ bu wootee fii ñoo fi jiitu ak bépp taalibe bu fi ne organisation bi culture waa organisation ak ñëpp jàppandoo nekk benn loolu yàlla mënu ko defal ndax am na yoo xam ni bëgg nañ ko te amuñu ko kon ñu ngi lay sant lool di wax nag ci ñun li nga ñu defal ñun at mu nekk dañu fiy jóge ngir war a màggal yi te bu ñuy màggali fii bu ñu fi nekkee bu ñu jaayee bu ñu amee ñen ñetti junni bu ñu ko wecci koo junni lay doon bu ñu amee ñetti junni ugu ya lu teg bu ñu ko wecci koo benn junni lay doon CFA mu war a jóge fii dem màggali am ñu fi am at di liggéey li fiy liggéey ñoom ñëpp ñu booloo ne dañuy màggal si te ñoom màggal rek la ñor ak gàmmu ak turu islam yi moom rek moo tax ñu takk oto yi dem seen kii bu ñu ñëwee ci yow bu ngay waaj bu ñu ñëwee ci yow. soo nu séenee ñun délégation bi da ngay bàyyi li ngeen def ne ñeere waa Mauritanie la ana Souleymane ñii defal leen li ñu bëgg ndax fi mu jóge dafa sori ci saasi la koy daal defar ci saasi la koy Souleymane daal defar jox nu ko ñu tegaat ci yoon autorité bu nekk Sénégal mu yabal lu ci moom bind lettre yabal lu ci moom mu dekk ko ci ba ci ren jii passé colonel douane chef douane chef bi gën a mag ci douane yi ci bureau la ñu recevoir génneeg ñu defal sa def réunion def ak ñun réunion ci fii lu ngeen bëgg yéen waa Mauritanie parce que lii ma gis rëy na ci man sëriñ Bass lii ma yónnee moom rëy na ci man kon loolu nag na ko santal di santal ñëpp bépp autorité bu nekk Sénégal te jàpp ci muy ki nekk noor Saint-Louis ak douane bi nekk ci centrale bi ci ci Rosso ñooñu ñëpp def nañ ci màggal gi ren loo xam ni kaw na suñu jot kon loolu lépp yow a ñoo la koy sant yaa ko defal di defal yeneen ak leneen waaye li gën ñor ci ñun mooy loolu ak ñaan gi ñaanal taalibe yi ndax ni ma la ko waxee sànq rek. boo ko ñaanee sa barke maam dal leen ñoom liggéey lañu bëgg jaamu yàlla tekki jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba rek moo leen ñor. àjjuma bu nekk dañuy daje fii 9h ba 11h ci guddi ku ne ñaanalante ñu jàng fi alxuraan ci ndigalu Seex Murtada ñetti kaamil turist xatisé yi ci culture bii doon jàng léegi àjjuma bu ne ndax dafa am ñu fi doon daje alxames. ak samedi daje fii ci dëkk bi ñii bu ñu dajee alxames ñii dajee samedi ñoom ñëpp ay murit lañ sëñ Mourtala ñëw fi yoon bu ko kii dalalee boo liggéey kenn dalal ko sëñ bi seet mu jàgg mu ne mu woote ci fii ci kër gi ci kaw boobu maa ngi toog mu ne léegi ku koo xam ne am nga koo yaakaar ci kaw ak suñu di ko ziyaara sañ nga am sa bis dem di fa teew. may na la nga dem sa bis am wut sa sàkk sa bis dem dafa teew dafa daje ndax jege-jege yi ndax sore sore yi te kës ga kër gi genn la mu ne diggante alxames ak samedi lu fi dox ñu ne ko àjjuma mu ne def naa ko def naa ko bisub Serigne Touba looloo waral àjjuma ji ña doon daje samedi ak ñi doon jàll alxames ñëpp baasaloo ci kër gi la ñuy daje àjjuma kon mbokk taalibe ñu leen ci wow ndax lu am solo la ndi ndigalu booru Serigne Touba doomu Serigne Touba la te doom ndigalu booru doomu Serigne Touba yombatul luñ mas a wax rek nañ ci jëf bu boobaa daan gis njëriñ li kon nañu góor sëriñ bi ñoog ñun amuñu sa fay sëriñ bi li ñu bëgg nag mooy nga ñaanal ñu ñun ñu bennoo nga ñu ñun ñëpp yàpptal suñu ñu nekk benn di liggéey Serigne Touba rek te bañ koo delleeg dara loolu rek lañ soxla soxla ñu nekk benn ñun waa Mauritanie ñu ñëpp ñu àndandoo jàpp ci benn buum ci ki fi sëriñ bi teg ñu topp ci gannaawam jàppale ko muy sëriñ ma jóg mi topp ci gannaaw seen siidi muy digal mu ñu digal ñuy def mu ñu tere ñuy bàyyi loolu lañ soxla ak lii nga xam ne moom fi moom lañ fi moom lañ fi sàkku si muy lu ñu yóbbu ca njaboot ga yàlla yombaloon ko tam bañ a ànd benn kër kër bañ a am ak benn bramaas